abonné leen ci suñu chaîne saa su na ngeen di am ay xibaar ak jàngat euh, yu wér te wóor Jean-Luc Mélenchon moom nag daal di nay def ab tweet jëmale ko ci Ousmane Sonko nee na nag am na ab waxtaan bu yaatoo yaatu boo xam ne dox na ci seen diggante ci avenir bu France ak Sénégal puisque Ousmane Sonko jamono ji mooy leader numéro un bu opposition bi te ñëpp xam nañ ne bu demee élection mën na koo daal di gagné au premier tour. moom Jean-Luc Mélenchon moom nag nekk fee ci réewum France mu ne nag kii di Ousmane Sonko waxtaan ak moom yaatal nañu. noonu ci ay programme yu bëree bëri yoo xam ni bëgg nañ ci ànd booloo daal di ci liggéey waaye surtout xeex lépp loo xam ni dafa jëm ci wàllum dérive autoritaire yu seen ay gouvernement maanaam jàdd koñ yu bëree bëri yi nga xam ne gouvernement bu France ak bu Sénégal ñu ngi koy daal di def loole mooy kàddu Jean-Luc Mélenchon nekk nag beneen ab kàngam ca réewum France boo xam ne moom itam gis na ne usman Sonko mooy avenir bi gën ngir Sénégal waaye itam ngir réewum ak les relation entre la France et l' Afrique loolee nag mooy li nga xam ne moo tukkee ci seen waxtaan moom mu daal di koy fésal ci compte Twitter am. mu mel ni nag Ousmane Sonko mi ngi garder le silence waaye boobu ba tey gars yu bëree bëri ñu ngi ñëw ci moom di addu di yëkkati ay kàddu jëmale ko ci li nga xam ne moo ñeel développement bu Sénégal bu Afrique waaye itam relation yi nga xam ne Sénégal war na koo mën am ak àdduna wërngal képp mooy li nga xam ne jamono ji ñu ci bëree bëri ñu ngi koy daal di partagé mu mel ni Ousmane Sonko jamono ji nag conquérir na le monde entier ndax ku nekk bëgg a wax ak moom ku nekk bëgg a gisee ak moom ndax xam nañ ne l' avenir du Sénégal jamono ji mi ngi ci ay loxoom ndax l' avenir la jeunesse et la jeunesse a dit oui à Ousmane Sonko. beneen xibaar ba nga xam ne moo daal di jëpp moo di Ousmane Sonko moom itam ci mbirum Jean-Luc Mélenchon bile daal dina ci yëkkati moom personnellement ab kàddoom ndax kat dafa publier ci page Facebook di xam ne ne moom daal na woon jot ab délégation boo xam ne ca France la woon ca Élysée fii ci diwaanub Ndakaaru Njaay gi di waxtaan ak moom nee waxtaan bu yaatoo yaatu lañ daal di amal kom ni nga xam ne noonee la ko Jean-Luc Mélenchon daal di xamle moom Ousmane Sonko mu ne waxtaan nañ nag ci ay mbir yu yaatoo yaatu waaye nag daf cee cabaxal mbirum Bassirou Diomaye Faye bi nga xam ne daa am ab boo xam ne defoon na ko fan yi ñu weesu ci lu ñeel wàllum magistrat yi nga xam ne nag fi ñu toll nii ñu ngi koy teg ay métit yu kenn xamul fan la daal di jógee moom Ousmane na mu ne nag jamono ji ñu toll nii ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye moom moomee am na ay policiers yoo xam ne ñu ngi ci buntu këram am itam ay coono yoo xam ne ñi ngi ko koy daal di teg dara waralu ko lu dul kaddu yooyu nga xam ne daf koo mu ma ngi ko tuddee woon la jëmale woon nag ci ñooñu nga xam ne ñoom la ñu dénk justice moom Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko nag di xam ne ne ci ab message li nga xam ne nguurab Macky Sall mi ngi koy def ci réewum Sénégal nekk na ay mbir yoo xam ne kenn mënatu koo nangu kenn mënatu koo accepté ndax nag ni nga xam ne noonu la système bi tëddee nekkul leen lu dul jël seen ab doole di ko jaay population bi kenn sañu la wax sa xalaat alors que dañoo nekk ci am réew boo xam ne dañuy woote woon ne démocratie moo fi dal di am loolee nag Ousmane Sonko mu ne amut benn yoon lenn képp moom moo fi am muy résistance droit la kon nag dañ koy continuer mu ne gars yi dem leen ngeen bindu ci ci liste électorale yi bu kenn daal di am benn mbir moo xam ne da nga ko ciy bàyyi ndax nag inscription massive boobu mooy tax ñu mën a daal di gagner élection yi nga xam ne moom la ñuy daal di la moom Ousmane Sonko mu ne nag on va en finir avec ce monstre noonu la tuddee ki nga xam ne moo di le président Macky Sall mu nekk nag ay kaddu yoo xam ne a jamono ji ñu toll nii dara moom ak itam kaddu ya mu ma ngi ko cee jàppale ba publier waat na ko di xam ne ni amul kenn ci kaw suuf koo xam ni mën naa tee ñu résister na gone yi bindu ji te xam ni atum 2024 dañuy débarrassé wu ci le président Macky Sall AGT News